الحب اللي عمره ما يشمت asalaamaaleykum mbokki déglukat yi seen mbokk seen xarit pasteur Ahmed Fall moo dellu siwaat ak yéen ci sunu émission kàddu gu sell gi te di leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di dellu di sant yàlla sunu boroom ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist
آه asalaamualeykum sunu mbokki auditeurs yi mbokk yi ñuy déglu fii ci sunu émission kàddu gu sell gi ma leen di nuyu man pasteur Ahmed Fall ku ci nekk ci turam ak santam di leen nuyu ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist yàlla sunu boroom ubbil ñu buntu mucc buntu texe ci yiwam ak yërmandeem jëmmal bunt boobu muy Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist yàlla sunu boroom jëmmal ko wàccee ko ci kaw suuf ngir mu ñëw wone mbëggeelu yàlla mbëggeel gi nga xam ne am na ko ci ñun ay jaamam mbëggeel goo xam ne amul xàjj ak seen mbëggeel goo xam ne law na laal na képp koo xam ne mbindeef la te yàlla sunu boroom sàkk la te moo ñu sàkk ñun ñépp mbëggeel googu dem ba ci rabu àll yi mbëggeel googu dem ba ci suuf si nga xam ne yàlla jagleel nañu ko moo tax yàlla sunu boroom yónnee ñu jëmm ju sell jooju muy Yeesu Kirist mu ne ko demal ci àddina nga liggéeyal ma fa liggéey goo xam ne yow képp a ko mën a liggéey yow képp a ko àttan ndaxte yaay ku sell ki demal nga doon buntu mucc buntu texe ci sama jaam yi ngir ñu jot ci man Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist ñëw yéeg ca bant ba deretam ju sell ja ñu tuur ko yaramam gu sell ga ñu toroxal ko moonte de mësul def loo xam ne mënoon nañ fa teg tànk ngir def ko jëf yañ ko def wante mu ne kenn jëlul sama dund wante man la soob ma joxe sama dund ngir lan ngir mën leen jot ngir ubbil leen buntu mucc buntu texe ñetti fan mu nekk ca bàmmeel ba ñetteel ba mu dekki ñëw wax ak ay taalibeem dellu fa nga xam ne fa la mës a nekk ne nag léegi bënt bi ubbeeku na yàmbalang jëmm ju sell jooju di Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist ba mu yéegee ca bant ba foofu ca Golgota ba nga xamee ne xam na ne kat lépp mat na dafa yëkkati baatam ca kaw bant ba ne lépp mat na liggéey bi mat na la ko yàlla sasoon mu matal ko sëkk moo tax yàlla sunu boroom dañuy wax ci téereem bu sell bi ne jox naa ko tur goo xam ne kenn amu ko jox naa ko tur goo xam ne kenn amu ko kon ñuy sant yàlla sunu boroom ci jëmm ju sell jooju nga xam ne jox nañu ko muy Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist yàlla nag mi ngi wax ak ñun ci téereem bu sell bi di biibal bi di wax ak ñun ci saboor ngir yeeñu jaarale ko ci gémmiñu yonentam jaarale ko ci gémmiñu Daawuda Daawuda wax ca saboor yàlla wax jaare ko ci gémmiñam ci aaya fanweer ak juróom ñeent saar ñeent ba juróom mu ne aji sax ji xamal ma sama mujj ak sama appi fan ma xam ni sama dund gàttee ni ma dul dara kon ñu baamtu ko waat ci saboor ci aaya fanweer ak juróom ñeent ci saar ñeent ba juróom lii la mbind mi wax aji sax ji xamal ma sama mujj ak sama appi fan ma xam ni sama dund gàttee ni ma doonul dara yàlla sunu boroom indil ñu saar yu am solo yooyu jaarale ko ci saboor ci gémmiñu daawuda daawuda di wax ki ko sàkk ki ñu sàkk naan ko xamal ma sama mujj ak sama appi fan xamal ma sama mujj mooy dee ma fàttali ne ci yow laa jóge te ci yow laay dellu yàgg-yàgg damay faatu loolu mooy mujj nit ku nekk ñun ñépp ñoo bokk loolu muy ku weex ki muy ku ñuul ki muy ki am ki muy ki ñàkk ki muy góor muy jigéen ñun ñépp ñoo bokk loolu tey jii boo waxee loo xam ne bépp doomu aadama bépp mbindeef bokk na ko ak moroomam mooy lan mooy mujj ga mooy yàgg-yàgg dañuy faatu bakkan gi day dem yàgg-yàgg yàlla sunu borom jëlaat ko moo tax daawuda naan aji sax ji xamal ma sama mujj dee ma fàttali ne yàgg-yàgg mu yàgg mu gàtt lim gi bari wala lim gi néew yàgg-yàgg damay faatu mu ne ko xamal ma samay appi fan fii ci kaw suuf kenn xamul ñaata at ngay dund ci kaw suuf maanaam mbir mi day bette loolu la daawuda di wax foofu yàlla sama boroom de ma fàttali ne bés ba nga xam ne ci ngay jëlaat sama ruu damay bett day bette dee day bette daawuda ne yàlla xamal ma ñaar yooyu dee ma fàttali yow mi ma sàkk ne kat man mii yàgg-yàgg damay faatu dee ma fàttali itam ne fii ci kaw suuf samay fan am na àpp maanaam dund ba faaw amul ci kaw suuf déedéet nee na dee ma fàttali samay àppi fan kenn xamul ñaata at ngay dund ci kaw suuf wante ñun ñépp wóor nañu ne yàgg-yàgg danaan faatu mu yokk ci ne ndax ma xam sama dund ni mu gàttee man ni ma doonul dara mu nekk wax ju am solo ñaan gu am solo yàlla fàttali ma ndaxte boo ma fàttalee yooyu danaa xam ne kat sama dund du dara te danaa xam ne man duma dara lu ñàkk solo la mu ne xamal ma sama mujj ñun ñéppay faatu yàgg-yàgg ak sama appi fan dund ba faaw fii ci kaw suuf amul yàgg-yàgg yàlla danaan ah bés ba jot na lii am dana am kenn du ci mën dara ndaxte nag ñun dañuy fàtte dañuy fàtte te ni ñuy dundee ci kaw suuf day wone ne dañuy fàtte ne sunuy fan fii ci kaw suuf am na app te sunu dund lu gàtt la te ñun duñu dara nit du dara wante dañ koy fàtte dañ koy réere dañuy dund façon gu dund goo xam ne day mel ne ñun sunuy fan fii ci kaw suuf amul àpp dañuy dund ba faw dañuy nekk ci kaw àddina di doxalee noo xam ne dañu yaakaar ne yàgg-yàgg-yàgg duñu delluwaat ca ka ñu sàkkoon moo tax daawuda ne eh yàlla dimbale ma dee ma yedd dee ma yee dee ma fàttali ngir lan ngir ma ànd ak ragal yàlla moo tax mu ne aji sax ji xamal ma sama mujj ñuy bàyyi xel ne yàgg-yàgg dañuy faatu yàgg-yàgg dañuy dellu ci yàlla ma ñu sàkkoon bakkan gi day dem ak sama appi fan nit ku nekk am nga app fii ci kaw suuf ak noo mënta mel ak daraja joo mënta am ak ndombal tànk goo mënta am ak mbooloo moo mënta am yàgg yàgg yàlla day appal say fan fii ci kaw suuf daawuda nang di tin yàlla naan ko yu mel noonu naa ci bàyyi xel du caageenu sax yàlla di ko ko fàttali wante moom mu koy fàttali boppam ngir lan ngir dund dund gu sell ngir ànd ak ragal yàlla ngir déggal yàlla ngir bàyyi ay tereem ngir jëf-jëf yu sell jëf yu baax jëf yu rafet jëf yu jaranaw ndaxte nit day fàtte àdduna toll na foo xam ne xam-xam bari na docteur yaa ngi def lu nekk ñi ngi faj nit mu ñëw ak feebar bu metti ñu jàpp la di la liggéey di la liggéey di la liggéey ba génne la ca feebar ba nga ñëw am yu la dal jël avion dem ci dëkku tugal yi boo yeggee ñu dugal la seen place yu yu kéemaane yooyu di la defar di la defar ba nga beesaat wante yàgg-yàgg da nga faatu yàgg-yàgg da nga dellu ci yàlla sa boroom nu xaalis bi baree nu docteur bi xarañee nu hôpital bi baaxee ngay moytu lekk lii moytu lekk lële te loolu nag lu baax la dañu war a segg bu baax li ñuy lekk li ñu war a moytu loolu lu baax la ci sunu yaram wante loolu itam génnewuñu wala aaruñu ci ne bés dana dellu ci yàlla ndaxte yàlla moo ne seeni fan am na app daawuda nang di ñaan yàlla naan ko may ma may bàyyi xel ne kat yàgg-yàgg danaa dellu ci yow yàgg-yàgg danaa faatu boo xoolee tey jii jamono ni muy doxee da ngay gis ne ñu bari dañuy fàtte ne danañ delluwaat ci yàlla ñu bari dañuy yaakaar ne seen dund ngi ci seen loxo lu leen neex ñu def ci ñu bari dañuy yaakaar ne àdduna du tukki am na bërëb yoo xam ne boo fa demee tey jii naan leen bés àdduna dana tukki dañ lay reetaan boo deful ndànk sax ñu dugal la ci hôpital yi ñuy faje ñu kannasu ñi dañ leen da nga kannasu da ngay dégg nit ci yenn dëkk yi muy wax naan la fiyoog fukki junni at fiyoog ñaar fukki junni at loolu duñu fi fekk déedéet da ngay dégg nit mu naan la fiyoog millions yi at ci kanam lii ak lii àdduna bi dana demee nii déedéet loolu dootuñu ko dund bu ñu xoolee àddina ni muy doxee firnde ñi yàlla sunu borom jox nañu kat boo leen ko gisee xamal ne lépp jeex na firnde yooyu yépp mat na léegi firnde yooyu yépp yegsi na mat na ñu ngi koy gis tegtal yooyu mu ñu joxoon yépp ñu ngi koy gis yàlla daf ñu jox ay tegtal ne dee leen xool boo leen gisee lii ak lii di am xam leen ne kon lépp weesu na lépp jeex na tegtal yooyu mu ñu jox mi ngi leer naññ tey ji ñu ngi koy gis ci àdduna bu ñu xoolee mbir yi ni muy gaawee lu bon ni muy lawee dugg fu nekk lu bon ni muy lawee mbir yi ni muy gaawee ni mu gaawee fi ngay teg sa bopp ci kaw lal bi ak fi fajar di jot ni muy gaawee at ak at loolu lépp di firndeel li yàlla sunu boroom wax ne lépp yemb na lépp jeex na moo tax daawuda naan aji sax ji xamal ma sama mujj ak sama appi fan ma xam ni sama dund gàttee ni ma doonul dara di ñu xiir yàlla sunu boroom di ñu soññ di ñu xiir ci lan ñuy fàttaliku ne yàgg-yàgg dañuy dellu ci moom di ñu fàttali ne kat nañuy fàttaliku ne sunuy fan fii ci kaw suuf am naa app dañ naan ah moom kat téeméeri at ak nangam la dund wante dellu na ci yàlla sunu borom dañ naan dund na fanweeri at gem na déedéet mu gàtt mu gudd yàgg yàgg da nga dellu ci yàlla sunu borom kon mbokki auditeurs yi ñu déglu tuuti cant balaa ñuy ñëw ci ñaareelu xaaju waxtaan wi
Hallelujah. Hallelujah. الإله قدير المنون. Hallelujah. Hallelujah. الإله القدير يملون.
kon jërëjëf mbokki auditeurs yi may baamtuwaat li nga xam ne yàlla sunu boroom waxloo na ko daawuda ci saboor fanweer ak juróom ñeent saar ñeent ba juróom aji sax ji xamal ma sama mujj ak sama appi fan ma xam ni sama dund gàttee ni ma doonul dara bu ñu wéyee di jàng ci saboor daawudaa ngi wax naan nee na dund du dara nee na nit dafa mel ne ab noyyi ak nokki mi ngi koy wax ci saar juróom benn ak saar juróom ñaar nee na nit dafa mel ne takkandeer buy dox dafa mel ne noyyi ak nokki maanaam dund mi ngi mel ne nga noyyi nokki rek noonu la gàttee noonu la ko daawuda waxee noonu la ko yàlla sunu boroom waxee jaarale ko ci gémmiñu daawuda bu ñu jàngee ci saboor aaya fanweer ak juróom ñeent saar ñeent saar juróom teg ci saar juróom benn ba juróom ñaar kon yàlla sunu boroom dañuy jàngal foofu ne war nañ di fàttaliku bu ñu dund topp sunu bakkan di def lu ñu neex yaakaar ne ñun ñoo yore sunu dund ci sunu loxo yenn saa yi nag da ngay dund nga nekk ku ku ku am wala ku ñàkk nga nekk boroom xam-xam wala nga nga nekk koo xam ne daal xam-xam bu bariwul wante nit daal nit buñ koy wax nit day dund yaakaar ne daal dara du jeex yaakaar ne moom moo yore ay fanam ci loxoom daaw da ne déedéet yàlla sunu boroom ne déedéet jaareel ko ci gémmiñu yonentam moo tax mu ne ma xam sama appi fan kon baax na ñuy fàttaliku yàlla sunu boroom di wax ci saboor jaarale ko ci gémmiñu yonentam ba Musa yonent yàlla Musa mu waxloo ko ci saboor waxloo ko ci saboor ci aaya juróom-ñeent fukk saar fukk ak ñaar mu ne yàlla na nga ñu xiir ci lim sunuy fan ba ñu mën a dawal xel mu rafet muy ñaan yàlla naan ko xiir ñu ci lim sunuy fan ba ñu mën a dund dund gu rafet wala boog dawal dawal gu rafet fii ci kaw suuf loolu la Musaa wax loolu la Musaa ñaan yàlla nee na nanga ñuy xiir ñuy lim sunuy fan maanaam di fàttaliku ne am na app ngir bés bu nekk ñu mën ko dund ci coobare gi yàlla ci la mu bëgg nee na dañu jàngal loolu maanaam bu ñu sàgganee sunuy fan fii ci kaw suuf bu ñu sàgganee sunuy at fii ci kaw suuf yaakaar ne mën nañu dabu lu nekk nekk ci lu la neex nekk ci lu la neex ba dem ba kàttan ga jeex ba fan yàlla dese bareetul nga ne ah léegi nag naa dellu ci yàlla naa dabu damay dabe la nga xam ne raw nañ ma ko dama koy dabe Musaa ne déedéet ca njalbeen ga fan yi la yàlla di jox bés bu nekk dee ko ko jagleel dee ko ko delloo del dund dund goo xam ne dund gu sell la dund goo xam ne ragal yàlla gu mat sëkk da ciy ànd bés bu nekk nag saa yoo yeewoo suba teel ba waxtu ba ngay tëddi del wéetal yàlla sa boroom ca la ngay liggéey ca la ngay wax ca la ngay jëf lépp lépp nang ko teg ci kaw ragal yàlla nang ko teg ci kaw déggal yàlla nang ko teg ci kaw sellal ci kaw jub moo tax yàlla sunu boroom dañuy yeewaat ci téereem bu sell bi ca xaaj ba ñu tuddee kàddu waare ca kóllëre gu bees ga ci aaya ak kóllëre gu njëkk ga ancien testament ci aaya juróom ñaar saar benn ba ñaar mu waxloo Suleymaan Suleymaan ne nee na bësub dee moo gën bësub juddu nee na dem dëj moo gën wàlli ci bër berne ndaxte dëj mooy mujjug ñépp dégg ngeen wax bi nee na bësub dee moo gën bësub juddu dem ca dëj moo gën nga wàlli ca berne ndaxte dee dëj mooy mujjug ñépp kon boog juddu dëj moo gën ngénte nee na ngay dem fa nga xam ne dëj dafa am moo gën sax ngay dem fa nga xam ne ngénte moo fa am ndaxte nee na boo demee ci bërëb boobu nga xam ne dafa am ku fa génn àdduna ndax sa xel dana delluwaat ci yàlla sa boroom nga xam say fan ni mu gàttee kon ragal yàlla dana duggaat ci yow ndaxte dee mooy mujj ku nekk kon dëj moo gën ngénte yàlla sunu boroom wax ko ci téereem bu sell bi ci kóllëre gu njëkk ga ca kàddu gu waare ca aaya juróom-ñaar saar benn ba ñaar ci ci nasaraan ñu naan ko ecclésiaste mu ne bësub dee moo gën bësub juddu dem dëj moo gën wàlli ca berne ndaxte mooy mujjug ñépp kon yàlla sunu boroom mi ngi ñuy delloo ci bàyyi xel ne yàgg-yàgg dañuy génn àdduna nee na ci aaya ci saar ñeent bi nee na ki am xel dana bàyyi xel ci kërug dëj dëj nee na ki amul xel nag dana fonk këru puukare yàlla moo ko wax ci téereem bu sell bi ci kàddu gu waare ayu juróom ñaar saar ñeent nee na ki am xel dana bàyyi xel ci këru dëj fa dëj am fa lay bàyyi xel wante ki nga xam ne nag dafa topp bakkanam dafa topp nafsom kooku mi ngi bàyyi xel ca këru puukare fa puukare ga nekk kooku dafa topp bakkanam kooku dafa fàtte ne ay fanam am na àpp wante ki nga xam ne yàlla sunu boroom baaxee na ko ba nga xam ne mi ngi bàyyi xel ci dee mi ngi bàyyi xel ci kërug dëj kooku ragal yàlla mën na dell siwaat ci moom ba mu xam ne yàgg-yàgg dana jóge fii ci kaw suuf ruuwam gi ki ko ko joxoon dana ko ko laajaat ay fanam am na àpp moo tax Daawuda naan jàngal ma jàngal ma ma xam ni ma ñàkkee solo ni ma doonewul dara Musaa ne jàngal ñu ñuy lim sunuy fan lim say fan mooy bul caaxaane dund gi la yàlla sunu boroom jox fii ci kaw suuf bul ko foowee lim say fan mooy bés bu nekk nga jagleel ko yàlla lim say fan mooy nga def sa këmtalaayu kàttan ngir dund dund gu sell fii ci kaw suuf lim say fan mooy nga soril caaxaan ci sa dund ñeme yàlla yàgg-yàgg da nga jàkkaarloog moom ragal yàlla yàgg-yàgg da nga jàkkaarloog moom yàlla sunu boroom nag di ñu yee di ñu yedd ni mu ko waxee nee na téeréem bii daf ñu ko jox ngir jubbanti ñu ngir jàng ñu jàngal ñu ngir yedd ñu ngir yee ñu fii nag mi ngi ñuy yedd di ñu yee mi ngi ñuy yedd di ñu yee jaare ko ci ay gémmi ñi yonentam waxloo leen tënk ko ci téere bii di biibal bi mu jox ñu ko jàng leen ci ngir ngeen xam jàng leen ci ngir ngeen am xam-xam te yàlla sunu borom nee na xam-xam bi ñëkk bi ëpp solo mooy ragal yàlla ki nga xam ne ragal na yàlla kooku moo am xam-xam te ragal yàlla mooy nga xam ne say fan fii ci kaw suuf am na ab ragal yàlla mooy ngay bàyyi xel ci ne yàgg-yàgg da nga dellu ci moom loo fay yóbbaale loo fay fekk yàlla di ñu yedd ndax daf ñu bëgg xiir ñu ci lim sunuy fan bu ñu foowee sunu dund moo tax boo jàngee ci téereem bu sell bi ci kàddu yu waare wax naag waxambaane yi ci kàddu yu waare ci aaya fukk ak ñaar saar ñett ba fukk wax naag waxambaane yi wax naag ñi nga xam ne ñi ngi seen diggu doole nee na del fàttaliku ki la sàkk te sa jamonoy waxambaane balaa màgget di ñëw nga ne talatuma caaxaan bàyyil xel ci ki la sàkk balaa bakkan dellu fa yàlla ma able woon yàlla di wax ak waxambaane yi maanaam naan leen yàgg-yàgg kàttan gi dana dem nee na nag ba nga nekkee ci jamonoy am doole ba nga ca nekkee ba nga ko talee del fàttaliku ki la sàkk ndaxte yàlla nee na man dama able bakkan bii sax daf ñu ko abal yàgg-yàgg dana ko jëlaat ruu gi moo ko def ci ñun yàgg-yàgg da koy jëlaat nee na del fàttaliku ki la sàkk maanaam del fàttaliku aji sax ji yàlla sa boroom ca say jamonoy ndaw waxambaane balaa màgget di ñëw nga ne talatuma ko talatuma caaxaan bàyyil xel ci ki la sàkk balaa bakkan dellu fa yàlla ma able woon mu ñuy wax ci téereem bu sell bi ci kóllëre gu bees gi ca Éphésiens bataaxal ba ñu jagleel waa Éphèse ci aaya juróom ca saar fukk ak juróom ba saar fukk ak juróom ñaar nee na noonu sàmm leen seen dundin ndaxte ñi ngi ci jamono ju bon waaye xam leen lii coobare boroom bi lii coobareem yàlla sunu boroom di ñu yee nee na sàmm leen seen dundin ndaxte ñi ngi ci jamono ju bon waaye ñu xam coobareem te koy wéyee di ko dund di ko def nee na mu yokk ci saar fukk aba fukk ak benn ci bataaxal ba ñu jagleel waa Efes ci aaya juróom nee na dëkkal leen ci seeni jëf li neex boroom bi daw leen lépp luy jëf yu bon kon yal nañu yàlla sunu boroom xiir ci darajey Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist di lim sunuy fan di lim sunuy fan ni ko Daawuda waxee ni ko Musaa waxee aji sax ji xamal ma sama mujj ak sama appi fan ma xam ni sama dund gàttee ni ma doonul dara kon yal na leen yàlla sunu boroom barkeel ci darajey Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist amin mbokki auditeurs yi
mbokki déglukat yi fii lañuy yemale sunu émission maa ngi leen di sant ci déglu bi te di leen fàttale sunu téléphone di 77 074 35 35 yàlla na yàlla sunu boroom wéy di leen barkeel tey wàcce ay yiwam ci seen kaw ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ mën ngeen jokkoo ak ñun ci 77 074 35 35
in Rome.